nga koo nomb ba pare. maa la raw tey noo indee Abdou Diouf. wala Macha nga indi tey. suñu tëdd fil ñoom ñaar ñëpp. Macha ak Abdou Diouf tey loolu indee tey laa la mën a laaj kenn. waaw nekk nañ nekk nañ ci wàccaay yi normal yu jaar yoon. leen rek moo des yàlla ñu borom. yàlla ñu yàlla may ndam tey comme ni ñu ko maye woon dimanche bi placé. sëñ Abdou Diouf tey indi na beneen Abdou Diouf gis nañ tey a ah, Abdou Diouf tey nag ñëw na ci làmb ji tey. waaw bokk na bokk na lu ci des nag moom mooy yàlla suñu borom. yal nañu yàlla suturaal tey waaw. la guerre lan la lay xaar ngay wax essai ni xam nga dama doon entraîné na pour cent. waaw wàññi naa ko ba def ko 5 nag léegi xanaa ah, gars yi dinañ ñëw. da ngaa wàññeeku nii. waaw wàññi naa. <laughs> ndax yow wàññi na nee na a ko dégg na wàññi man fa laa yem <laughs> waaw Gris Lac de Guiers Gris Bordeaux combat la di combat bu neex parce que damaa xamul lan la lu gars yi di xaar si loolu. Lac de Guiers Gris Bordeaux. Bordeaux maa Gris Bordeaux. waa deux heures laa bëgg a bëre. ah jëlul tamit lamb la. waaw moom la jàppani. amiin jaajëf.